moo tax mu ne wa bii ci man ci man mi baay yurfau ci la ñuy yëkkatee aljawrul azim bàkkaat bu réy bi bàkkaat bu réy bi moom ñëpp xam nañ ko mooy bokkaat yàlla wax na ne inna shirka la zulmun azim yàlla wax na ci alquran ne xam leen ne bokkaale tooñ bu réy la bàkkaat bu réy la bàyyi na mu ne bokkaale moom pour mu denc ci yow ci man rek nga ko mën a dindi ci man rek képp ku ñëwul ci moom moom mënoo sonal sa bopp da ngay gis sax kuy wax ak taalibe bàyyi naan ko da ngaa war a bàyyi bokkaale day xaw a reetaan parce que yow sax li ngay tuddee ak moom fi mu egg ci denc bokkaale bokkul parce que ki nga xamante ne nee na day wéetal yàlla li Cheikh Tidiane wax rek mu ne kii ne day wéetal yàlla au contraire dafa nekk di wéetali yàlla ndax moo nga fa yàllaa nga fa jaamu yàlla gaa nga fa kooku wéetalul yàlla dafay wéetali ki ngay wéetal kay mooy nga bàyyeekoog nekk gi bàyyeekoog nekkaale gi boobaa yow nga denc sa nekk gi bàyyeeko xaqiqatan loolu ku ñëwul ci bàyyi na sa radiyallahu anhu da koy dégg rek waaye doo ci mës a am doo ci mën a am taw bàyyi ñas mu ne li may wax nii mooy que ne bàkkaat bii nga xam ne moom mooy xijaab bi gën a rëy bi dox diggante jaam bi ak boroomam te ñu bëri lott ci nag te wax ji bëri waaye bàyyi nes nee na kiiraay bi dox ci diggante jaam bi ak boroomam kenn mënu kaa dindi ku ci ku man jullit boo gis bu dee jullit la gëm na ne yàlla moo ko gën a jege bu baatam gëm na ne yàlla moom moo gën a rëy loo gis gëm na ne yàlla moo gën a feeñ loo gis waaye ba tey mënta comprendre nag comment c'est possible ma gis a pulla no mbiyata comment c'est possible ma jakar jàkkaarloog adam di gis adam fek yalla ma gëna a adam yalla gëna feñ adam yalla gëna yàllaa adam te ma ngi ni jàkk di xol adam te wa gis yàlla ku ñëwul ci baye do ko xam tax bàyyi na mu ne wa bi al yurfaul al azim ci man mi ci lañuy yëkëté yëkkatee gu bu rëy googu mu ne wa innahu li am li deug bi faydiya ad-din rafaa liwa'i ci sama faydu gii ci la sax diine lislaam gii di yëkkati ko loolu ku ko xool xoolal tey eh, ci moment bi nekk nii Cheikh Mahamadul Mahi nekk Darfour nekk Soudan di def liggéey boo xamante ni islam rek ko mën waaye sirru bi moo ngi ci faydu moo tax Baye Niass doon wax naan wa marratan uxra mu ne suba à l'avenir di ngeen gis lu leen yéem di ngeen yéemu ci sama faydu bii nii kon lépp rek ci faydu bi la moo tax Baay Ñas mu ne ci sama faydu bi ni yanalu dinu rafaa liwaay Baay Ñas nak mu ne man shaa ya'tihi qubayla mamaatihi ku mu soob yeb ñëwal ci faydu bi njëkk ngay dé ku neex ñëwal wa man shaa nawahu ka ahli shaqa'i ku mu neex tamit nga dummóoyu ko rek comme ñi texe Baay Ñas nee man jaana fa marhaban bi majiihi wa man fatana yakfihi anna nafutu mune ne képp ku ñu diggal marhaban ñu ngi lay wax marhaban ahlan wa sahlan mune ne waaye képp ku ñu won ginnaaw doy na la ñoo la njëkk won ginnaaw rek buñ la wonutoon ginnaaw da ngay ñëw parce que Baye ñas nee na man samay taalibe tànn naa leen ca xëy bu njëkk ñuy ñëw wax na ci rabb al mu mune xir li ya sahban fudala wa xir li min kulli cheyin xayrahu wa kulli yow yàlla na nga ma tànnal ay àndandoo yu baax mu ne te lépp lu baax da ca gën tànnal ma te bàyyi la ci même qasida bi la wax ne mosuma ñaan yàlla dara mu bañ ko nangu kon li muy firi mooy képp ku ñëw ci bàyyi tànneefu yàlla nga tànneefu bàyyi nga ku ci ñëwu ci tam bul foog ne yow yaa daw bàyyi da nga amul chance yàlla boolewu la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ànd ak bàyyi parce que bàyyi ne xalaftu yaminan innani laa yuhibbuni siwa asadin wal aksu fi xaali bogdiya Baay Ñas maa ngi giñ ci yàlla man kenn du ma bëgg lu ki gën a texe ci mbindeef yi mu tamit contraire tamit maanaam képp kenn du bañ lu ki gën a texe di ci mbindeef moo tax wax na mu ne laqad almustafa ma rubtu min sigari wal yawma qad shaaba fawdi sayid almustafa ma rubtu min sigari la ma doon sàpp depuis ba may ndaw mu ne wal yawma qad shaaba fawdi tey moom sama bi sax bi jaaw na li a wax mooy yeneen bi geex suma mel ni daf ko bëgg a wax ne jot na waaye jot na bi jot am باينس لي حقيقة موي لقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قضائي باينس دي كل مي أمتي يالا أمنكو بمي نيك ندو بمي نيك تم فتحي مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قضائي وقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب والقبائل وما بقوا في شرط ولا بفضل إلى مكة إلا بشر صوائب والإملاء وعين اليوم عين محمد سرى سره في هاي ورائي ما شاء الله باين اسكي قصيده بوب اريد دفتي دف اي ديكلاراسيون يو دراو دي وانا موم روام النبي صلى الله عليه وسلم بسكا باين اسكي بنان قصيده مونغي واخ موني سما قد قال ممدوحي وهو المنفذ باني فوضت الامور لبرهامه وهو المنفذ mu ne sama ki may takk mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wax na bind na signé na ne man jël naa mbir yëpp jox ko Cheikh Ibrahim léegi moom mooy décidé moo tax Baye Niass mu ngi wax naan raaytu rasulallahi nassa bi annani safirun lahu fi lkainati wa mublisu mu ne gis naa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jahrat mu bind tamponné ne man kat Baye Niass mooy sama ambassadeur ci kaw la radiyallahu anhu ci xasida muriitu boobu noonu bàyyi dafay wax mu ne wa kullun wa leyla wa barhaamu mubtalan comme li mu wax nii ne wa mar wa barhaamu mubtalan bi ahmada a naasi ayni bahaai bàyyi na dafa ne fa kullun wa leyla nit koo gis yëpp am na leyla leyla du ñàkk xam ngeen histoire eh, majnun leyla dafa nekkoon rek koo xamante ni dafa bëggoon benn ndaw su jigéen histoire bi ñu bëri buñ koy nettali dañ koy nettali zahir ma waaye histoire bu ñor fomb la ci baax benn anecdote bu ndaw rek laay indi ci histoire boobu noonu dafa am bés euh, Qays la tudd waa ji waa ji Qays la tudd Majnun Qays la muy dox ci mbedd mi rek ba mu taseeg Layla ci boppam Layla taxaw naan ko xam nga ma man maay diw nangam ak nangam Qays na كوسل سما كلام من بجيل الليل عدف ما سخل بطر رمالا أنا بجيل دي موم يتل وليس يوم دي موم نينا الليل عدف لولو نيغا حمي حمي توتي زوكو تي تي تي ci fanaaw xam nañ xam nañ lii lay laa di wax foofu waaye bëri na ay ah da ngay gis Baaba Lamin wayam boobu muy way Layla moo ko way amuru ala diyaari diyaari Layla uqabilu zal jidaara wa zal jidaara wa ma xubbu diyaari shagafna qalbi walakin xubbu man sakana diyaara maa ngi romb miir yi mu ne maa ngi fóon miir yi mu ne waaye du bëgg miir yi moo tax mooy fóon miir yi xataa bu romboon Layla di fóon Layla du Layla moo tax mais mbëggeelu Layla moo tax xaw ma ndax dégg nañ maanaa bi xaqiqa moo tax bàyyi ñas radiyallahu anhu nag mu ne wa kullun wa laylaahu boo gis am na laylaawam mu ne waaye wa barhaamu bàyyi mubtalan dañ kaa nattoo bi ahmada xayri naasi ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne moom mooy ki gën ci mbindeem aynu bahaa yi moom mooy sama jëmm ak taar bàyyi nas nag bi am ñu muy waxal bu am ñu muy junj ku bàyyi xel dina xam ñan la doonte ne tudd kenn بعد اسمع ومن حسد جاروا علي وانني مبرز اقراني اوان الصبال من جاي حق الدور بس بعد ان لقد علم الاقوام اني خديمه فوصل حبيب فوصل حبيب الله يلفى بوصلها بعد اسمع الاقوام عارفي الاقوام عارفي بعد ان لقد علم الاقوام عارفي من خمنين اني خديمه من ما من دانو ينتهي صلى الله عليه وسلم من آه، فوصل حبيب الله يلفى بوصليا جوكوتي يننت بمو ثم رك لنج في امي رضي الله عنه ما نس من يوم الحسد الجارو عليه تي تي تي تي كي نان رك لنج دكا لك من واي من مبرز اقران انت ما يرو سمي مروم ولا رونا لنسا اواد السباء انت بما ينك نو بما ينك حلب نو ملريكا لاج داو بي سي بان ات مولا وقت تم فتحي حملنا سما فكو تي يالا مان متنا عند مهدي بما نكي سي سما بيرسو وقد عنت مولا مو مجو فك سكل لوس او رب دي واخي سين لوس ييب مانام غور يالا ييب غور غيب ييب دانيو نيو سكل سين لوس سي سما رون ات نيوم مانام نيوم نيب لي مي في رك مو نيسمي المشافو bàyyi mu wax lu gën a rëy mu ne fa maa qataaxu gaa yi dagguñu fi charti bàyyeekoo penku wal xarbi wala bàyyeekoo soow fad fadan di ay mbooloo ilaa makkati jëm ca makka illaa li champi chadaay lu dul ñu xeeñtu ci sama xet bàyyi nas nag waxul lu dul ñu xeeñtu ji ma man de waaye ñu xeeñtu ci sama xet am na lu muy junj yàlla moo xam lan la bu doon waaye ala kulli nee na amul kuy jóge koo penku wala soow jëm Makka maanaam jëm ziyaare ji Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tut ne man sama xeet rek ngay wëri ndax boo xamoon la fa nekk xaqiqa di nga xam ne sama sama mbóot rek fa nekk parce que Baye Niass wax na mu ne saralaha sirru madinati nabi wa xabsaha tanfi bi la tarayubi li annaha madharu fayd alxatmi fiha rijalun dawqum kalxaatimi Baye Niass mu ne saralaha من خمال نه رجعنا نبوت كيان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نيوت سما مدينة بيه نيونا قلوا تفهم من في ما يفين يكايو فيض الختم فيض الشيخ تجاني في ما يفين يواي من فيها رجال ذوق كالخاتمة من خمال نفوف نون أمنا أي غور يو خمال تجي سيني نمتي يالا نفمال ابن عربي الخاتم يبقى خمال تجي كي يوان نتي يالا بيوحن بنا ختم الله الولاية فانتهى فلا ختمية فلا ختمية بعدي am na kalima bu fa làkkatu dama ko jàpp muy wax mu ne ci ñun la yàlla matalee wilaayat ku dem bay kawee ci yàlla di toll noonu bàyyi xam na ne mu ne la nag ci ci Medina bii nii am na fi ay góor li mu la bëgg a wax rek mooy mbuucaa mbuucu Medina yi yor nañ zawqu ibnu arabi xaatimi bàyyi mu ne gars yi sama xeet la ñuy wëri mu ne walim la pourquoi pas mooy lan mooy tee loolu am wa ay nit yow ma ay nu Muhammad tey sama jëmm ji man mooy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag wax ji leer na leeru seen saa yi nga gis bàyyi nas mu ne la muradiya kawnal Mustafa ayna aynihi إلا فموتي فيه شوقا لأنصري من سما نمل موي نيك دي جيم دي جيم مو يننت بي صلى الله عليه وسلم باي مو نون واخ نه سما نمل موي نيك يننت بي ولا نيك جيم مو يننت بي واي دافا ني كون المصطفى عين عينه نيك دي جيم جيم واخ دي ليبول داف لا بوغا واخ موم موي كان باسكو جيم يننت بي موي شيخ تجاني مانام عينه شي تي لانغو تصوف تي لانغو معرفه loo gis dafay am daat am ay am ism am sifa Baay Ñas nag mu ne man li ma bëgg mooy nekk aynu ayni nabi nekk jëmmi jëmmu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam foofu noonu nag nekkul di la indil insha mais xabar la booy jàng ilmul balaaga dafa am lu ñuy tuddee al insha ak xabar insha mooy lépp loo xamante ne mënoo cee wax nit ki wax nga dëgg wala fenn damaa bëgg a dem Fass amin amul wax nga deug wala fen dama nam rek mais suma ne dem na fas fofu mën na am deug la wala lu deug lolou moy xabar moy information insha day ñëw ci yu bari day ñëw ci tamanni moy nam nam wala ñaan wala yu mel noonu bàyyi na ci ay waxam day bari lol nga gis ci wax nga fokk ne insha la fekk xabar da ngay fokk ne bay dafa nek di ñaan mais fekk daf lay informer parce que sax bay na sax moom ci bopam wax na ne ما قط أبت هائبا من ربي بل كل ما أبت شكرت أو بي من من مسما بق درجي يالا لدودنا يالا دفلنا مو مستعم كن باي باس انا تمني واي دفلي دفلي انفورمي فتوى باي نسنا نقول ولي ملا وعين اليوم وعين اليوم عين محمد سراسل في هيكلي ورؤاي pour qu'ils comprendront nara japp peut-être incarnation wala men non dede baye nena la sirru bi la moo tax fële tamit daf laa ne saraalaha sirru madinati nabi parce que bu ñuy changé capital ba muy jóge Saint-Louis di dem Dakar wut ne bâtiment yi ñooy dem mais document yi rek la ñuy jël yóbbu ko fële na le mu jeex bàyyi nas tamit mu ne la xamal ne sirru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sirru nubuwa moo ngi ci sama loxo comme ni sirrul wilaaya nekkee ci sama loxo parce que bàyyi nas wax na mu ne وخلفني في ملكه بعد غيبتي وسرت عن الهادي وفزت ببغيتي وما فيهما الماحي سواي مناديا وكل الذي تحت التجان بقبضتي باينس دافا واخ مونيا يالا اوتال نما تي نغورم جي غيناو بما في جوغي موني موجو امول كوي جوبل امول كوي افاسل كودوت مان موني خمالنا نك لپ لو نيكون سي رونو تاي موغي سما لكم مان ماكو تي لولو لتي تامي لب لو خاندي مامو نيكون تي رونو نبوة موتاخ موني ساراس في هيكلي ورؤاي بوتي يانت بي صلى الله عليه وسلم راญان نا نيو جيخ تانك سي سما جيم باينس موني وما قلت لما يوحني وهمك شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولاي من لما يوحني وهمك غير دما ام حال بني تدي عارف بي ان ساي من حال بو خمنتني مجاز لا حال بدو حال بدو حقيقة حال صح دي خلنا وقت فرصك مقام ما في أمد حال حال بين سيتياسيون لا ريك بنيت كي تولو يالا وونيل كو اي مقاما يالا وونيل كو اي موتا مو تخاو دي واخ دي لامبي حال بوب نون باي ناس مو نك من نيكوما تي حال بوب نون نكا نوني تامين نيكوما دي ووتي وو ووتي تيا خانو كاتو جامونو يي لي ماي واخ حقيقه لا موتا مو ني وبي تي من ci man mi baay yurfau ci la ñuy yëkkatee aljawrul azim bàkkaat bu réy bàkkaat bu réy bi moom ñëpp xam nañ ko mooy bokkaat yàlla wax na ne inna shirka la zulmun azim yàlla wax na ci alquran ne xam leen ne bokkaale tooñ bu rëy la bàkkaat bu rëy la bàyyi na nag mu ne bokkaale moom pour mu denc ci yow ci man rek nga ko mën a dindi ci man rek képp ku ñëwul ci moom moom mënoo sonal sa bopp da ngay kuy wax ak taalibe naan ko da ngaa war a bàyyi bokkaale day xaw a reetaan parce que yow sax li ngay tuddee bokkaale ak moom fi mu egg ci denc bokkaale bokkul parce que ki nga xamante ne nee na day wéetal yàlla li Cheikh Tidiane wax rek mu ne kii na day wéetal yàlla au contraire dafa nekk di wéetali yàlla ndax moo nga fa yàllaa nga fa jaamu yàlla gaa nga fa kooku wéetalul yàlla dafay wéetali ki ngay wéetal kay mooy nga bàyyeekoog nekk gi bàyyeekoog nekkaale gi boobaa yow nga loolu ku ñëwul ci Baye Niass radiyallahu anhu da nga koy dégg rek waaye doo ci mos a am doo ci mën a am taw Baye mu ne li may wax nii mooy que ne bàkkaat bii nga xam ne moom mooy xijaab bi gën a rëy bi dox diggante jaam bi ak boroomam te ñu bëri lott ci nag te wax ji bëri waaye Baye Niass nee na kiiraay bi dox ci diggante jaam bi ak boroomam kenn mënu kaa dindi ku ci ku dul man jullit boo gis bu dee jullit la gëm na ne yàlla moo ko gën a jege bu mu baatam gëm na ne yàlla moom moo gën a rëy loo gis gëm na ne yàlla moo gën a feeñ loo gis waaye ba tey mënut a comprendre nag comment c'est possible ma gis apul eh, na mbeex comment c'est possible ma jakar ak adam di gis adam fek yalla ma gëna a adam yalla gëna gën adam yalla gëna yàllaa gën rëy aadama te ma ngi ni jàkk di xol adam te wo gis yàlla ku ñëwul ci baye do ko xam moo tax bàyyi na mu ne wa bi yurfa'u al yurfaul al azim ci man mi ci lañuy yëkëté bakkat bu rëy googu mu ne wa innahu li am li dëkk bi fayd ya yanalu din rafaa liwa'i ci sama fayd gi ci la sax diina lislaam gi di yëkëti ko ko xol xolal tay ci moment bi nekk nii Cheikh Mouhamadul Mahi nekk Darfour nekk Soudan di def liggéey boo xamante ni islam rek ko mën waaye sirru bi moo ngi ci faydu moo tax Baye Niass doon wax naan wa marratan uxra taraw na ajaban faydi zal xatmi imaman fi jaba mu ne suba à l' avenir di ngeen gis lu leen yéem di ngeen yéemu ci sama faydu bii nii kon lépp rek ci faydu bi la moo tax Baye Niass mu ne تسقى فيض بيني ينال الدين رفع لوائي بعد اسمك من ومن شاء ياتيه قبل الى مماته كم صوبيت نول تفيض بي دك غيدي كم نيخ نول ومن شاء ناواه كاهل شقائي كم نيخ تبي قدوم موي كول نتخي بعد اسمك من جاءنا فمرحبا بمجيئه ومن فاتنا يكفيه انا نفوته من كيف تكون يتكل مرحبا نملا مرحبا اهلا وسهلا من واي كيف تكون يوان جناو داينا لنيول ديك وان جناو رك buñ la wanatoon ginnaw da ngay ñëw parce que Baye Niass nee man samay talibé tan na leen ci xëy bu njëkk ñuy ñëw waxna ci rabbal ibad mun khir li sahban fudala wa khir li min kulli cheyin khayruhu wa kulli yow yàlla na nga ma tanal ay àndandoo yu baax mu ne te lépp lu baax la ci gën tanal mako te Baye Niass ci même qasida bi la wax ne mosuma ñaan yàlla dara mu bañ ko nang kon li firi moy képp ku ñëw ci Baye tanefu yàlla nga tanefu Baye nga ku ci ñëwut itam bul foog ne yow ya daw Baye da nga amul chance yàlla boolewu la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ànd ak Baye parce que Baye nag nee na xalaftu yaminan innani laa yuhibbuni siwa asadin wal aksu fi xaali bogdiya Baye Niass mu ne maa ngi giñ ci yàlla man kenn du ma bëgg lu dul ki gën a texe ci mbindeef yi mu ne contraire bi tamit contraire bi tamit maanaam képp kenn du ma bañ lu dul ki gën a texe di ci mbindeef yi Baye Niass mu ne ومن رام إطفاء لنور إلهنا أبى الله أن يطفيه رغم عدائه من كيف كو خامتاني ياغي يعني نما داك ياغي يعني نما فاي ليرك يالا بي دي فايدو من خمال يالا بو ياغ لا وخني آه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره جاي نيوغي بوغا فاي ليرك يالا غي سيني واخ يو نياو يالا ني مان ما باي باي ناس من أبى الله أن يطفيه رغم عدائي يالا باي ناني كين دو فاي sama sama faydu bi ni bañ sa sax wax na leneen moy fi mi wax ne waqaftu ala al-maknun wa inni sami'tu min lisani man la yantiqu an al-hawā an la yadurrani makhluqun kainan man kān wa inni utitu umran atwala min umri walidi falawla anni muradu allahi fala uhibbuhu لأن ما في لما في هذه الدار من القدرات وأبشركم أن لا يقع إلا ما تحبون وترضون فإن هذه الفيضة فيضة تجانية ستنبسط في الأرض وتضم جميع الآفاق فمن أراد أن ينفر الناس عنها إنما ينفر الناس عنه لا عنها باينس بولي فين برجلين سهلة من فيض بي خملنا فيض أشياء كتير على لا دنا تعلل كتير كوسوف بيب من كيف كتير جيم دك جيني خملنا يعني دك جيني كسب بوب واي دك ولا كتير فيضك ndax kenn ci ñoom moom mooy dem découvrir fayda ñëwaat nag naan moromam yéen nag ndeke kii da leen di nax li ma ñam fële ne le amul ci kaw suuf fu dul foofu moo tax bàyyi nas mu ne képp ku ciy dàkk képp ku ciy jéem a dàkk nit ñi yaa ngi leen di dàkk sa bopp wax na ko sax ci benn wóolare papaam ci jawaaxe rasaayit bàyyi nas ne ko maa ngi lay woo ci fayda woowu ma la ci pour bugg mbooloo mi ndax fayda bii dina egg fépp fu suuf si egg mu ne waaye dama laa yéene lu baax na nga ñëw nga wuyu ci fayda bi wala boo ko wuyuwul tamit bul bokk ci ñi koy inkaar loolu laaye biir la rek parce que boo ko inkaaree tamit dafay dafay dem fi mu war a dem bàyyi nas mu ne sa urgimu bil maaxi dalaali unuufa man yara shirka wa taslita ahla qilaayi bàyyi nas mu ne danaa danaa perte loo maanaam danaa tas njortu ña nga xamante ni dañoo nekk di xeex fayda bii nii ñu ne ko ñan la mu ne ñi nga xamante ni dañuy bokkaale yàlla di gis ñett boo xoolee li nga gis ñi nga xam ne dañuy woote trinité waaye boo xoolee ci biir islam da nga koy gis mooy li ñu waxoon ki nga xamante ni moom def na boppam def na yàlla def na jaamu yàlla bi kooku gis na gis na ñett te yàlla dafa ne laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalisu salaata yéeféer la ci ki nga xamante ne def na yàlla mu nekk ñetteelu mbir ma yaa nga fa jaamu yàlla baa nga fa yàllaa nga fa waaye nag kéeféer gi tamit ñu balaa majzu bi di ko jël lislaam waaye képp koo xamante yaa ngi gis ñett wala yaa ngi gis ñaar bu boobaa rek yow maxjum la moo tax Baay Ñas radiyallahu anhu moo ngi wax ci suma juumu tabibi qaribun la falastu usannihi walam aku ajmaahu baytu bu ko jiitu xaw ma la jàpp ngeen mi wax ne man bëgg naa yeneen bi sallallahu alayhi ak yàlla mu ne waaye ñaaree du ma leen te du ma leen def ñett mooy du ma leen def mbooloo loolu li muy firi mooy jeex naa ci yàlla comme ni ma jeexee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> jeex baatu jeex su ma koy wax rek daf may fàttali benn wax boo xam ne Cheikh Abdoulahi Dia bu boggee la la daloon benn borom xam-xam bu mag fuutanke la mais Dakar la dëkkoon man xam naa ko amaana tur bi jarul tudd ba muy dégg fayda bi di doog a tàkk boggee dafa jël ay taalibeem dem foofu noonu pour fay loolu ba mu yegsee bokk na ci biir waxam mu ne ñun taalibe bàyyi li ñuy wax xam nañ dañoo bëggul coow rek da ngay jeex ci yàlla jeex ci yeneen jeex ci Cheikh Tidiane loolu kese la Cheikh Abdoulahi ba mu ko déggee mu jug taxaw mu ne ko man damaa am laaj mu ne ko bismillah mu ne jeex nga wax jeex ci yàlla ak yeneen ak Cheikh Tidiane mu ne ko wax mu ne ko yow ba nga jeexee ci yàlla ba pare la nga jeexi jeex ci Cheikh ci yeneen bi foo ko jëlee xanaa jeexoo woon waa ji waa ji mujj mujj tëb xaar añ bi pare na rek nu mu ñibbee parce que taalib bàyyi moom boo bëggee mucc rek li ñuy wax fexeel nga xam ko boo ko xamul rek dangay mel ni dof bi ñu doon wër weer wa mu ne weer waa ngi ne paree guñu wax rek mu ne weneen a ngi def noonu rek lay mel moo tax Baye Niass radiyallahu anhu xaqiqa la indi mooy loo xamante ne lii certitude la ci nit ki di am moo tax Baye Niass mu ne hadamtu alladi qad assasuuhu wa innani bi sirri almuqaffa laa yuhaddu binaayi Baye Niass mu ne hadamtu alladi qad assasuuhu gars yi liñ fi tegoon ci organisation wu tasawuf kii mooy sëriñ bi kii mooy taalibe bi ba abadan Baye Niass mu ne loolu man dindi naa ko daaneel naa ko waaye wa innani man bi sirril muqafa ci sirru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam muy Cheikhu Tidiane mu ne laa yu haddu binaa yi li ma tabax nii kenn du ko tabax kenn du ko mabal waaye lépp luñ ma tabaxoon lépp man mabal naa ko ndax liñ tabaxoon wérut kon Baye radiyallahu anhu li ma wax rek certitude la ñu indil daj gis wala daj des la ñu Baye Niass radiyallahu indil léegi taalibe bi nag moom mooy toog toujours di analyser boppam di def autocritique boppam est-ce que man li Baye Niass radiyallahu anhu ci man di soxla ci man am naa ko mooy lan mooy ndabu shariatu ak ndabu xaqiqatu parce que Baye Niass dafa ne euh, man bi zahiri shar'i wan nuuril mubiini rabbi saalikiina bila shakkin wala riyabi mu ne man xam leen ne ci xaqiqa bu leer nañ ak shariatu bii ci laay yaree samay taalibe ci lu amul benn sikki sàkka amul benn werante bàyyi na si wax na sax ba wax wax bu garaaw muy wax ne képp koo xamante ne yaa ngi xotti ormay sharia te nga tey ko mu ne util beneen sëriñ bu dut man man du ma si kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni taalibe bi war na cee réviser euh, ñuy ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla boole ci tànneefu Baye Niass yi nga xamante ni Baye Niass radiyallahu anhu moo leen di tiitaroo gannaaw ba nga xamante ni ñoom tiitaroo nañ Baye yàlla bu ñu bokk ci ñoo xamante ni Baye daf leen di jéppi yàlla ñu yàlla may soxlawoo jëmmam ji ñu ñu soxlawoo oxygène bii ñuy noyyi def suñu guddee suñu bëccëg suñuy coono suñuy noppal yëpp nekk rek ngir am yàlla tabaraka wa taala ngir dund yàlla tabaraka wa taala waaye ngir yàlla boobu mën a refléter ci ñun ba képp ku ñu gis yëpp bëgg yàlla képp ku ñu gis yëpp namm yàlla tabaraka wa taala yàlla ñu ko yàlla defal bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di jéggalu ci Euh, guddal bi nga xamante ne bëriwul solo waaye ñoo ngi ñaan rek lépp luñ fi wax yàlla na doon njëriñ yàlla na fekk ne jotaay bii nii jotaay la boo xamante ni fii la yàlla di jaaree gërëm ñu dootuñu jéppi ba abadan fii la yàlla di jaaree jas bu ñu jas boog mbëggeel jas boog jokk boo xamante ne dog du ci am ba ilaa yawmi diin barakati rasulillah sallallahu alayhi الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته